professeuru université ay avocat ay taskatu xibaar ay xeexkatu ak ak yelleefu doomu aadama ba si ay homme politique ci tënk ëpp nañ téeméeru nit ñi nga xamante ni signé nañ bi les tribune ngir rek ñaax liberté wu Ousmane Sonko ak yeneen détenu politique ci seen woote bi nag yile signataire daal nañoo xam ne nag lu leen soxal rek mooy préservation état de droit ak woote jàmm si biir réew mi professeur Serigne Diop ak ay àndandoom ñu xam le ne que ñoom nag protection droit à la vie bi nga xamante ne constitution bu Sénégal ak yeneen traité internationaux des droits humains ñoo ko garantir la ñu bëgg si loole daal di nañoo woo njiitu réew Sénégal président Macky Sall mu daal di jox ndigal jëwriñam gi mu dénk wàllum yoon ngir rek chef de parquet yi taxawal procédure d'urgence ngir rek ñu mën a bàyyi kii di Ousmane Sonko ngir rek préserver vie am ak droit civique ñoo ngi ñaax itam liberté provisoire ñeneen ñi nga xamante ne ñoo ngi ci biir kaso yi te deful lenn lu dul joxe seen opinion ak mëne ay activité politique li nga xamante ne seen droit moo leen ko may daal nañoo ñaax itam njiitu réew mi daal di retiré décret bi nga xamante ne moo tas parti Pastef ngi rek indiwaat ordre constitutionnel bu garantir pluralisme intégral ñoo ngay ñaax président Macky Sall mu daal di leen may luñ ko ñaan ngi rek jàmm ak salaam mën a ñëwaat ci biir réew mi ci jamono ji nga xamante ne su région bi nemmeeku nañ ci ay jafe-jafe rawatina lii di recul